chef de l'État son excellent le président Macky Sall nom, si projet zéro déchet pour euh, ñu seetal nous bi ñu nous mais dëkk bi mu nous nous euh, Sénégalais pour que nous am nous nous yaram hôpital centre de santé nous poste de santé Nous suis ma pour vérifier déjà ce bi nous avons dañ ndax vraiment ñi ngi ci parce que cet gi ñuy wax fofu la wara a may euh, wax né tay lima gis dal na sama xel jarna hôpital Albert Royer jarna Fan Grand Yoff Dantek actuellement ñi ngi fi ci hôpital Abbas Ndaw yéen gis comme man que né li ñuy gis wax dëgg Yalla doyna vraiment donc satisfaction très souvent danañu am ay cas d'insatisfaction ci biir hôpital yi ba mu melni ni da baxu fa mais bu ñuy ñëwee tey dañuy seetlu ne vraiment li baax tëjag yaakaar naa ne moo ëpp lool lool lool loolu nag dafa am solo mooy li tubaab di wax nañu moytu arb bi xamante ne mooy ndëbb fore bi loolu may wax ne kontaan naa directeur d' yi maa ngi leen di félicité di félicité directeur général des établissements de santé ak équipe am yëpp di wax ne yoon bi ñu tegu bu ñu su danañu tabax hôpital bi ñu bëggal Sénégalais yi moy hôpital bo xamante képp ku fu dugg rek da nga am satisfaction. profité naa aussi si tournée bi pour euh, euh, ñu waxaale tuuti si lu ñuy wax euh, les déchets biomédicaux parce que bo duggé ci bor hôpital ñaari façon wu déchets mo fi am amna déchets yo xamante mën nañ wax né moog déchets yi nekk ci kër yi ñoyam dañ ko assimiler à des déchets ménagers mom le UCG de jël gis ngeen camion bële loolu moko fi indi même am déchets yo xamantene ne mënuñ ko dugal ci camion diko yobbu parce que newul ay déchets ménagers loolu ay déchets biomédicaux la dafa laaj ben traitement bu spécifique ben attention bu particulière parce que waruñu ko sagané parce que mën na indi benen jangoro déchets yooyu nag hôpitaux yépp ñokoy koy génne structure de santé yépp ñokoy koy motax ci biir structure de santé yi ci biir hôpitaux yi ñu tek fa effectivement ay jumtukaay yu mucc ayib pour jël en charge déchets yu incinérateur incinérateur yi lay bokk ak euh, donc lepp lo xamantene ne la bo xamantene bu traité déchets yu dootuñu am ben ngaañ lolou ñi ngi si may wax ne nag euh buñuy def lu baax téréwul dem ñu continuer vigilance bi baña a baisser les bras motax ma joxe instruction partout rek bés bu jot ñu ñew xol est-ce que amul dysfonctionnement système bi est-ce que amul lo xamantene dafa soxé ñu war ko mëna corriger lolou donc ñi ngi si joxe orientation yu pour que liguey bi nekk des déchets ménagers mais aussi nous def attention particulière aux déchets biomédicaux parce que le traitement bu wóor la am loolu mooy indi qualité suñu système de santé. Si je suis ci hôpitaux yi wax dëgg yàlla euh, satisfaction bu satisfaction bi am que partout rek ñi ngi transformation silencieuse positive dans am suñu structure de santé bi ma jëmee léegi Dantec la euh, structure de santé, ñu bëri dañ ko diaboliser won sax mais bo ngeen fa duggé du ngeen fa màgg yéen gis ngeen ne vraiment il y a quelque chose qui est en train de se passer bo ñëwee fi ci Abass Ndaw même chose bo démé hôpital général de Grand Yoff partout bo taxawé rek directeur yi ñu ngi jël ay initiative ak personnel bi ñu andal pour transformer positivement l'hôpital loolu ma leen si félicité bu baax di leen wax ne alhamdulilah parce que am na cas yoo xamante ne boo koy dégg des fois ni ñu koy exposé si réseaux sociaux yi da nga naan mais musiba mu am partout mais boo ñëwee fii da ngay xantir ne

wax donc virus bi ñuy wax euh, coronavirus te mu am si Chine n'ekna na virus bo xamante ne jaaxal na àdduna bi touti euh motax OMS déclaré ko urgence sanitaire internationale ñun deuk Sénégal jël nañ jumtu kay si bir aéroport yi si boru port mais si frontière yi pour vraiment kep ko xamante da ngay ñew ci réew mi rek ñu vérifier ndax amul lo xamante ne niru na bu fekkente ne am na jël nañ matukaay yépp pour que suñu structure de santé yi mën leen jël en charge de manière donc efficace ak ni mu waree parce que euh, protection bi am na solo teg ay jumtukaay si frontières yi pour que ko am ñu mën la seetlu mais mettre en place dispositif bu mattam pour que bu ñu amee benn cas bu jógee bitim réew ñëw dugg si réew mi ñu mën la jël en charge nu mu waree loolu système bi préparé nous ko ba pare bu population yi ben, am ben inquiétude non seulement ñu ngi préparé frontières mais bés bu ñu amoon carte cas tey itam bu jógee bitim réew en charge de mu dans les meilleures conditions.